kon ñoo ko déggandoo muy parcours bu am solo waaye tamit mu am background bu riche te loolu jàpp naa ni moom la ñuy euh, tànnee politicien jàpp naa ni moom la ñuy sàkku ci képp koo xamante ni nii yaakaar nañ ni war nga ñu mën a dem représenté ñu fële nga xamante ni moom moo nekk assemblée nationale waaye euh, sëñ euh, Seydina Ousmane su ma la laajoon lan mooy rôle député ci assemblée nationale parce que bari na ci ñoo xamante ni nii ci département bi peut-être ñi ngi choisir leader te leader yi ñuy choisir peut-être mën nañ bañ a xam rôle député wala ñi koy choisir sax mën nañoo bañ a xam kii di leen dem di leen représenté lan moo fay mais effectivement Babacar laaj bu am solo la bu jara leeral ndax li nga wax dëgg la amalgame boobu day am léeg-léeg ci acteurs yi politique yi ak ci ñi nga xam ni ñoo war a voté ji euh, le député action principalement mooy di voté loi di contrôler action du gouvernement donc rôle bu am solo la ndax état du Sénégal comme état yëpp bala ñuy dugg ci am at. dinañ tënk ci kayit bu naan budget. lépp loo xam ne moom lañ fas yéenee doxal ci at mi. donc dinañ bind. recettes yi fu ñu koy jëlee. soit ci impo soit ci euh, taxes soit ci li nga xam ne moom la Sénégalais yi di joxe ci ay port ak ay aéroport ak yooyu. tënk li ñuy am ci recette. tënk aussi li ñuy soxla ngir mën a jàkkaarloog. soxlay askan wi. Mhm. ba ñu am dundin bu sell. Mhm. bu ñu tënkee ñaar yooyu. Mhm. mën naa am léeg-léeg mu am gab mu am différence li ñuy soxla ëpp euh, li ñuy yaakaar ci recette. su boobaa effectivement lañuy euh, ubbi bunt bi naan leb. su ko defee ba mu li ñuy soxla. ñu tënk ko tudde ko budget ministre bu nekk nag day indi sa sa sa sa wàll mhm. day indi sa pàcc ministre de la santé indi pàccam ministre des infrastructures euh, ministre de de de la pêche ministre yëpp indi seen seen seen seen pàcc ci ci livre boobu mhm. buñ ko indee ñu jébbal ko député bi mhm. député bi war a li nga xam ni moom lañ wax ni moom la ñuy jëlee ak fi ñu koy def. Mhm. donc loolu di rôle bu ama ama am solo boo xam ni dafa soxla. Mhm. Euh, xam-xam. Mhm. soxla taxaw seetlu. Euh, ndax it bu la sa département tànnee. yàbbal la ci penc ndaw réew mi. war ngaa mën a am xam-xamu li lay proposé ni loolu la ñuy def sa département. nga mën koo càmbar ba mën a xool ba xam lan moo si njariñ. lan moo war a ñëw. en plus boo ko votee ba pare nga suivre action yi di ko di ko di ko topp. Euh, Euh, le rôle premier. Mhm. c'est voter budget bi. Mhm. bu budget bi ñëwee nga xool xam ni euh, lii yenu na maanaa sénégalais yëpp dinañ ci gis seen bopp. sa mhm. département gis sa bopp. effectivement bu fekkee logique nga ak sa sa avec toi-même. bu fekkee nit ku réew mi ñor nga dangay ngay voter. pour bu fekkee gis nga ni am na lu ñu war a joyanti. di nga ci def li nga war a def seeti ministre concerné yi waxtaan ak ñoom. ñëw plénière waxtaan joxe sa xalaat joxe say argument technique ba mën a ba mën a joyanti wala bu fekkee da nga fa war insérer leen lu bees nga def ko mhm. bu fekkente ni jàpp nga ni loolu lépp tëna la boo demee assemblée nag mhm. nga taxaw jéebaane mhm. wax ni nii ñu def nii laa ko gën a gisee nii la waroon a demee expliquer mi mu nekk loo xam ne day tangible te am argument scientifique yu leer donc loolu bu xasee jàll ba nga voté nag euh, budget bi effectivement il faut suivre faut nga suivre l' action du loolu nag aussi comme on le dit euh, xam-xam a koy def soo amee proposion de loi boo xam ni jàpp nga ni am na njariñ ci askan bi am nga possibilité proposer proposition de loi boo xam ne jàpp nga ni dina impacter directement si nit ñi ni ñuy dundee askan bi ni ñuy dundee moo ñu ñor ñun ñëpp moo tax ñu dugg si langue politique bi ñu moo tax ñuy dox donc buñ gisee loo xam ni effectivement dafa war a mhm. euh, nekkinu askan wi te euh, état am ca faiblesse da nga ko war a euh, xeex ko fexe ba mu nekk loo xam ne dañ koy wéyal. Mhm. donc en somme yii mooy léegi léeg nag fii Touba nga dégg ku ni député bu ñëw di diggee. Mhm. ça veut que comprendre gul li xew. Mhm. wala nga gis député boo xam ne day ñëw mbooloo mi euh, war ko rek mu bëgg à tout prix ñu ñu ñu votel ko muy leen naa leen xëccal fii tali wala naa leen xëccal fii ay tuyaux. wala dinaa leen defal seen dispensaire wala nangam ça veut que comprendre ñi muy waxal comprendre duñ tamit. Mhm. donc il faut que vraiment fondamentalement ñu xam ni député bi dafa am taxawaayu représenter nation bi. Mhm. ndax élection boo xam ni nit ñi ñoo la fay ñoo la fay teg la. buñ la fa tegee nag war ngaa mën a xam seen soxla. Mhm. d' abord xam seen soxla bu baax a baax a baax. mën koo défendre di leen rendre compte. d'accord ñu dégg la léegi nga wax ba wax proposition de loi euh, de loi mën nañ ci euh, sous-estimer euh, bëggu-bëggu ñi nga xamante ne ni moom mooy waa Touba suñ la doon laaj tey yan mooy doléance si nga xamante ni ñoom ñoo gën a prioritaire fii ci waa Touba ngir yow bu la yàlla defoon tey nga nekk député dem ci assemblée ba nationale ba di nga ko fa mën a euh, yuuxul waa Touba. mais mais merci bien Bakar bi ñuy njëkk bi ñuy njëkk a def mooy parce que kenn umpalewul ni Touba dëkku diine la li ñuy njëkk a def mooy. protéger nos chefs religieux gis na ni bu yàgguloo Njaay am na ku nekk présidence de la république génn ay kàddu yi safaanoo jëmale ko ci kilifa diine yi sans être inquiété te amul dara lu ko lu ko ci mën a fekk loolu jàpp naa ni suñ proposition de loi bu njëkk lay doon incha allahu rabbi bu ñu sénégalais joxe confiance ban dem assemblée li ñuy njëkk a def mooy au même titre au même titre que ñu euh, que ñu protéger le président de la république via l'article quatre-vingt dinañ fexe ba chef religieux aussi ñu def proposition de loi boo xam ni dañ leen siy protégé ndax dafa am solo loolu euh, gis nañ bi mu waxee ay kilifa diine yu bëri wax am na doomu sëñ Fallou boo xam ne ñu ngi koy ziare bu baax di ko ñaanal gudd fan ak génn na wax ci wax joo xam ni deretu xale yi mën nañoo tàng ba mu indi jëye parce que effectivement li mu wax day dëgg gu wér ci pas-pasu jàmbur kenn du ko ñu bàyyi nit rek mu nekk pale rek nekk ci ñoom lu ko neex mu wax wax si suñuy bind ñu ñu yaakaar wax si suñu jumaa ji wax joo xam ni demeewul noonu wax ju ñaaw la. Euh, loolu il faut ñu protéger ko. mais est-ce que nekkul tamit wax jooju noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ko jege dañ ko bëgg euh, jël politiser ko jël ko bëgg euh, nekk mu nekk arme boo xamante nii moom la ñuy xeexee ci campagne yi nga xam te ni moom lañ jëm. bon en réalité du arme parce que bu nekk bu demee woon noonu da ngay gis benn frange de la population ñoo ci nekk di wax mais Sénégal gépp a jógoon. Mm-hmm. kilifa diine yëpp a jóg. Mm-hmm. ba man. vraiment bett na ma li tax ba léegi mu nekk fa ndax kii bu mu amoon. Mm-hmm. loolu du affaire politique Sénégal gépp nga gisoon ñu wax ci. Mm-hmm. kilifa yoo xam mosoo leen a dégg ci politique. Mm-hmm. ñoo génn wax ci. donc nekkuloon affaire politique. affaire boo xam ne dafa laal sensibilité ak gëm-gëmu doomu aadama yi. muy lu sensible loo xam ne mën naa jur jëye ju nekk ci Sénégal. il faut que loolu ñu arrêté ko nu koy arrêté mooy protéger leen via des des des lois claires. ba au même titre que ñu protéger président de la république. ñu mm-hmm. protéger suñu chef religieux yi ba kenn du fooyee seen. kon daal jàpp nga ni yow loolu mooy doléance bi njëkk boo xamante ni nii bu la yàlla defoon député bëgg nga proposer ko foofu noonu. ci mooy doléance bi njëkk des na yeneen. Mm-hmm. parce aussi ñëpp xam na ni. Mm-hmm. Touba est resté toujours à l'état de commune. loolu incha allahu rabbi bis bu ñu yàlla yóbboo assemblée fas nañ yéene euh, wëlbati don boobu. ba def ko une ville spéciale. mu mhm. ngi naan spéciale mais c'est si tur rek la. Mhm. maanaam kayit yu tënk. Mhm. ni Touba ville spéciale la ba bu ñuy ti budget. ba bu ñuy joxee ti cër. Touba ñu bañ koo jox cëru commune comme commune yi ci Sénégal yëpp. mais ñu jox ko cëru ville spéciale. mën naa wax comme ni Vatican mel ci Italie. comme ni Monaco mel ci France. c'est des villes yoo xam ni c'est des villes spéciales protégées am seen statut yu leer yoo xam ni. état day xam ni ñii fii lañ nekk li ñu war a jot ñu di ko jot correctement. Mhm. Touba mënta nekk dans le département le plus di du Sénégal. Mhm. parce que effectivement bu ñu wax Mbacké mooy département bi gën a peuplé Sénégal Touba tax. Touba tax mhm. euh, Touba mënta am. kilifa diine yu mel ni fi nekk. donte kilifa diine yëpp am ci Sénégal. mais ñëpp xam na ni kilifa diine ak dëkku lislaam ak dëkku diine mooy mooy mooy tuuba Touba mënta. indi ci économie li muy indi nga xam ni ñëpp xam na ni wax dëgg fa yàlla màggalu Tuubaa li muy dugal ci gafaga réew mi mhm. amul événement bu koy dugal ci ci gafaga réew mi mhm. donc yooyu yëpp nga dajale ko ba pare bëgg koo def commune tënk ko ci li nga tënke commune yëpp mhm. jàpp naa ni loolu rek lay la boo xam ne bis bu ñu taxawee euh, défendre ko def ci liñ ci war a def indi yeneen élément yu gën a xóot boole ko ak lépp teg ko ci kanamu assemblée jàpp naa ni dinañ ko voté ba Touba mën a nekk ville spéciale comme ni ñu defee biñ demee ba xam ne màggal Touba dafa war a nekk jour férié niñ ko niñ ko niñ ko lijjantee xeex ko lijja def ci suñu yittee noonu la ñu bëgg a def incha allah ba suñu deuxième proposition de mooy def de Touba une ville spéciale. macha allah kon dégg ngeen explication yu am solo yooyu.